ma jéem rek euh, monsieur ministre euh, tënk li ma wax léegi ci wolof di gërëm suñu partenaires yi mooy euh, taskatu xabaar yi di aussi nuyu sénégalais ak sénégalais ñuy seetaan ci télévision wala ñuy déglu ci rajo yi di wax ne question yi ñu ma posé yépp bëri na mais bu ñu ko tënkee mën nañ ko donc tënk ci ñetti ponk ponk bu njëkk bi mooy li ñuy wax deuxième vague naka lañ ko gisee ñun ak lan moo si suñu taxawaay ñaareelu question yi mooy vaccin bi ñuy wax ne day ñëw est-ce que wóor na parce que xel ñaaw na si des fois bu ñëwee itam nan la ñuy def ñun ak ñun vaccin bi ñu si tànn ñun ñu koy wax Moderna lu ñu si xam loolu tam mooy ñaareelu préoccupation bi. ñetteelu ponk mooy la xew assemblée nationale am ñoo xamante ne am nañ fa Covid 19 lu si suñu taxawaay ak nan la ñuy organiser wu bu mujj bi mooy ñeenteelu préoccupation mooy feebar bi daloon euh, pêcheurs yi ñu demoon géej nappkat yi fan lañ si toll bon ñeenti ponk yooyu laa jéem a tënk rek rapidement bu njëkk bi mooy li ñuy wax deuxième vague. deuxième vague boobu yaakaar naa ne fi ñu toll nii mën nañu réaliste wax ne ñu ngi si parce que mbir pour nga mën si jot bu baax da koy nangu commencé ko xeex lu tax ñu ne ñu ngi si mooy que ne quarante cinquième semaine bi dañu gis ne cas yi dafa commencé décoller wu jógee quinze vingt cinq ñu xëy rek mu yegg quarante trois dem ba soixante-dix semaine ba sa tollu loolu continuer di gën a fës ñu dem ba semaine douze yaakaar na ñuy dem semaine bi mujj nii ñu dem ba yegg quatre cent ak lu teg bon dëkk situation bu mel noonu bu amee dañu war a nekk am na lu bees lu xew lu bees li xew mooy que ne am nañ beneen situation bu bees ci xeex bi bon dëkk deuxième vague boobu yaakaar naa ne mën nañu réaliste qualifié ko d'une de vague ban taxawaay dañ si am taxawaay bi nag yaakaar naa ne co-construction moom lañ njëkk a def mooy ñun ñëpp ñu booloo taxawalandoo li xamante ne moo tax ñuy xeex mbir mi mooy respect mesure barrière yi na ñëpp sol seen masque mais aussi distanciation physique bi ñu respecté ko boo gisee li xew ci transport en commun yi nga gis aussi li xew ci yenn barab yi mais ñu ne dañu war a taxaw pour que fépp foo xamante ne mbooloo dafay daje rek ñu jël effort respecter distanciation physique bi bon dëkk encore une fois mesure barrière yooyu il faut ñu respecter ko set aussi setal di raxas suñuy loxo ak saabu ak gel communication bi xamante ne war na si te askan bi war ko téye ñu war a fexe ñëpp bokk si mooy communication communautaire danañ ko booster waat bon nag mesure yooyu mooy mesure yu xamante ne mënatuñ ko économiser ma waxoon ba le passé que ne bu laajee ñu yegg fu gën a tar si ay mesure tam dañ ko war a def parce que suñu wér-gu-yaram moo jiitu lépp balaa nga naa naam ne fa moo tax effectivement ñu demander effectivement à ce ku nekk jël mbir mi jëlal ko sa bopp bu ñu laa yegg fenn fi situation yu mel nii nag il faut que ñu combiner ko ak surveillance des forces de défense et de sécurité parce que am na ñoo xamante ne ba léegi man naa am ba gëmuñu ko walla seen coobaree moo leen yóbbu foo xamante ne duñu xalaat intérêt askan bi loolu nag force de défense et de sécurité ñoo si war a taxaw te bu ngeen seetloo fan yi ministre de l'intérieur jël na si ay mesures yu am solo sur ce plan là posé nañu ma question si wàllu vaccin bi ñu ne vaccin bi fu ñu si toll ma wax ne Sénégal dafa bokk si benn alliance initiative COVAX alliance boobu mën nañu wax ne organisation mondiale de la santé yore wàllu wér bu wàllu yaram si àddina moom lañ si àndal ak Gavi nga xamante ne moom la ñu àndal si wàllu vaccination ak UNICEF ak ñeneen ak téeméeru dëkk ak juróom-ñaar fukk yooyu juróom fukki dëkk ak juróom-benn yi dañu nekk ay dëkk yoo xamante ne seen revenu intermédiaire mooy seen am-am dafa digg doomu Sénégal si ñooñu la bokk. bon nag alliance boobu li ko tax a jóg mooy bés bu vaccin bi teewee ñu mën a am effectivement possibilité am si pour suñuy population bon nag ñu ngi si biir alliance boobu di si liggéey te lépp lu ñuy jàpp di ko tëral ne lii la ñuy jël rek si alliance boobu day fekk organisation mondial de la santé homologué ko def si cachet ne baax na nañ dem bon nag li ma leen di répondre mooy que ne Sénégal tànnul Moderna. loolu il faut que mu leer nit ñi xam ko parce que ñëwaat na deux ou trois fois ci euh, question yi vaccin yooyu bu ñu ci tolloo am na donc kuréel boo xamante ne mi ngi si biir ministère de la santé nekk direction de la prévention am xarañte lool ci wàllu vaccination parce que expérience am moo ko may parce que moom mooy gérer programme élargie de vaccination kuréel boobu moom moo yore stratégie bi te mi ngi ciy liggéey déjà moo tax bu ñu si yeggee mën ba ñu ñu jëkk a mooy ñu nekk si ligne de front bi personnel de défense de personnel de santé et d'action sociale yi ensuite mën naa ba ñuy am benn âge bi xamante ne bu leen feebar bu duggee mën naa am dañ leen di teel a faagagal mais aussi ñi am obirité ñu xamante ne am nañ beneen jàngoor seen yaram de telle sorte bu feebar bu duggee mën na leen sonal xalaat yooyu ñu ngi siy réfléchir pour bañ ne bu mbir mi ñëwee. bettuñu ci sa stratégie vaccin rek toujours da ngeen di xam ne ci histoire vaccination bu vaccin bu bees di dugg toujours day am xel ñaar xel ñaar boobu am na ci vaccin bi bu ngeen fàttale fàttalikoo yàggul lool bi ñuy dugal vaccin contre cancer col de l'utérus ñu bëri dañ doon wax ni wóorul du yóbbu seen doom loolu moom vaccination ànd mais ñun dañ am stratégie de communication d'information de formation lui permettre ñu régler question yooyu bon nag maa ngi rassuré de ce point de vue que lépp lu ñu siy def si wàllu vaccination non seulement dañ koy def suñuy scientifique gunge ñu mais aussi dañ koy def si mbootaayu organisation mondiale de la santé parce que li ëpp solo mooy intérêt wu suñu population yi mooy protéger les sénégalaises et les sénégalais am na question bu ñu posé si suñu stratégie suñu stratégie est-ce que moo taxoon ñu am résultat yu baax yi àdduna bi yëpp bàkk ou bien wax immunité collective mooy bàyyi mbir mi jàll ba ñëpp protégé wu moo tax dama ne woon immunité collective ou bien recherche d'immunité collective bu nekkee stratégie loolu toujours boo seetloo mënul ànd ak ay ñu génn àdduna ñu néew parce que li lal loolu stratégie boobu pour parapra paraphraser économie si laisser aller laisser faire moo ko lal mooy bàyyi rek mbir mi dem ba ñëpp am immunité collective ñun loolu du suñu du suñu stratégie suñu stratégie mooy détecter ñi xamante ñoo suspect isoler leen dans le cadre d'une prise en charge loolu dafa am solo moo tax ñaari laboratoire ñoo amoon institut Pasteur rek d'ailleurs moo fi newoon ñu dugal IRESSEF mais après ñu teg partout au Sénégal li ñuy wax une democratisation une décentralisation du labo fi may wax ak yéen Sénégal rek mooy réew bi xamante ne fii ci suñu tund dëkk boo dem région boo dem mën nañ la defal test génneel la ko dans les vingt quatre heures prise en charge bi itam au début dañ ne woon antaluñu bu téeméer lal fii ñu toll ni am nañ juróom-ñaar fukk ak ñaari CTE yoo xamante ne si réew mi la ñu nekk ñu mën fa def prise en charge te mën nañ dem ba cinq mille quatre cent lii bi mbir mi wàccee la ñu résumé indi ko rek si fan ak dalal jàmm mais li des desoon yépp dañ ko lekk dañ ko bàyyi woon en veilleuse au cas ñu ñu réanime loolu c'est stratégie de prise en charge aussi la bokk sans compter suñu approche de communication préventive boo xamante ne dañ ko basé ci communauté yi stratégie boobu nag li ko laloon mooy aussi un portage au sommet de l'État mooy que ne ki xamante ne moom moo yore xeex bi jiite ko dafa war a nekk ki yore réew mi te loolu Sénégal réussir na ko mais beneen bi Sénégal réussir aussi mooy une cohérence dans l'organigramme de la lutte mooy ñi xamante ne ñoo yoree mbir yi il faut ku nekk xam lan lañ la si jox sa pàcc portage au sommet mooy kilifa réew mi son excellence la république commité national de gestion des épidémies au niveau national comité de gestion épidémie au niveau de chaque région groupe opérationnel au niveau du terrain ba pare instance de détection de prise en charge et cetera donc dafa cohérent woon li ñu doon def loolu nag si la ñu nekk moo tax ma ne non l'immunité collective mën na am ba mën nañ see am ay acquis si biir processus bi mais dawul newul li xamante ne moom la ñu opté au début pour que mu réglal ñu problème Covid 19. li ñu opté au début pour mu réglal ñu Covid 19 mooy le plan de contingence bi ñu soumettre son excellence le président Macky Sall mu validé ko ñu déroulé ko ba léegi. troisième quatrième euh, préoccupation bi ñu souligné. troisième pardon mooy le cas à l'Assemblée nationale effectivement ñu ngi fay liggéey wala ñu xamante ne dañoo nekk ay contact symptomatique mais képp koo xamante ne itam bëgg nga ñu test la de manière volontaire boobu ñëwee effectivement ñu test la mais Sénégal stratégie am du tester systématiquement tous les Sénégalais parce que lépp lu ñu def rek dañ koy day am une base stratégique euh, li xamante ne aussi euh, laaj nañ ñu ko mooy feebar bi daloon na nappkat yi may rassuré ci côté boobu ko ne depuis le premier décembre ba léegi mën nañu wax ne amatuñu benn cas boo xamante ne yore nga feebar bi ñëpp wér nañu ñëpp wér nañ te amatuñu benn contamination ñëpp wér nañ amuñu benn contamination mais amuñu benn lu ñuy wax kaa secondaire koo xamante ku amoon moo la ko jox mais terewul. li ñu doon seet ñu ngi koy seet ba léegi seet boobu nag warul nekk mënul nekk seet bu gaaw parce que lu lu lu musul am la lu ñu door a seetlu la seet nañ ko au niveau toxique seet ko au niveau virologique ñu ne dañ koy seet au niveau des algues centre antipoison nekkoon si bu baax centre antipoison nag bu liggéeyee ba am fu mu yegg su wàllu géej xamante ne àdduna bee ko bokk il faut mu partager ko ak yeneen communauté scientifique yi moo tax si partenariat am na benn centre bu mag de recherche bu nekk nant boo xamante ne yor nañ suñuy échantillon dañu bëgg ñoom ba ñu pare ba pare bu ñu envoyé lu ñu si am rek ñu mën ko effectivement weccoo parce que si